man maa ngi tudd euh, Etienne Dembélé euh, dëkk Pencum Alinguer Buntu Dépôt ma ànd euh, sama frère Pape Amadou Diop ak suñu dom bi muy Cheikh Mbeng doomu Souleymane Beng doyen Souleymane Beng donc ñun daal dañu leen a woo si fii ba remercier leen d' abord pour le déplacement temps bi ngeen jël ci seen calendrier bu chargé bi ñëw fekk suñu fii parce que dafa am benn mbir bu ñu Nous si suñu koñ bi ñu ñoo dëkk fii Penccu Aly Ngert biir koñ bi gis nga kër gi ngeen di seen nii moom moo am boo xam terrain abandonné une maison abandonnée dem nañu ci à maintes reprises pour leur en parler c'est un problème de salubrité on a été au niveau des services d'hygiène ils ont fait le déplacement une seule fois de l'Union, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Ils ont en euh, premier temps appelé un truc d'aspiros. Bon, bref, ils ont essayé de solutionner, mais il est toujours là, le problème, il demeure, il est toujours là, récurrent. Vous êtes même venu un peu en retard aujourd'hui parce que le moment, euh, le matin, c'est un nid de, d'un truc d'habitation de porc. Et avec l'hivernage et tout, vous voyez ce que c'est. C'est un problème de salubrité pour ce nous dormir, pour Konybeek Nyomsen. Comme que nous, on ne peut pas le faire entendre raison, nous devons nous ni Thiès Info, nous devons nous faire calme, machallah, c'est ligue, nous devons wassare suñu cri de cœur bi nga xam ne moom mooy yi vraiment ñu war a réagir par rapport à ce problème là. Nous, daal loolu daal nous tax vraiment ñu woo leen pour ngeen ñëw jàppale ñu quoi que ce suñu rakk bi muy Xaadim Samb buñ ko woowee rek immédiatement le wo équipe bam diligente dal di ñëw fii pour ñu mën leen expliquer exactement luy suñu mbébé. suñu maire mairie bu ñuy dépendre moom mooy de Thiès ak entreprise même ndox mi di jaar suñu ginnaaw jakk jeeg ñom sen on l'a interpellé à maintes reprises suñu quartier bi n'y a pas de de camion de ramassage on est obligé de faire avec avec de faire avec les les les charretiers charretu mbaam yi ñoom la ñuy euh, louer chaque mois pour jël suñu yi ñu daal on est pour pour compte quoi complètement laissé pour compte les luñ fi def ñoo fi defal suñu bop am duñ fi gis autorité muy aussi bien euh, euh, communal que autorité bu mu on voit personne borom kër yi ñun on les connaît même pas on les connaît même pas xamuñu leen on a essayé de faire des recherches pour xam ñan la y a le menuisier métallique bu fi njëkkoon dëkk leen xam mais il paraît que c'est un problème de famille mais hormis tout cela mais quand même kër gi nga xamné ne foosa moom mooy déversé wu fi parce que ki mom le truc abandonné là on va essayer de trouver une solution pour djem ko euh, voilà pour la voilà pour sécuriser ko mais ñun suñu problème mom moy cette maison là bi nga xamné ne fosse septique am dafa toj di ñëw déversé wu fi mom moy suñu problème majeur. comme euh, ni grand bi waxé rek donc euh, c'est une situation boo c'est alarmante et ça fait bientôt six mois ñu ngi jooy loolu. Voilà, on a même interpellé le propriétaire de la maison. Mais pour nous régler le, euh, problème, de venir, il y a les, les voitures là. Il manque Voilà. Donc, pour un mois après, le problème je pense que ça reste entier. D'aller changer. Donc, comme les grands nous nous les autorités compétentes. Ils ont nous régler la situation parce qu'ils ont fait des choses, ils ont fait des choses, ils ont fait des choses, ils ont fait des choses, ils ont fait des choses, Euh, def appel ak autorité yi buñ ci mënee dara ñu dimbali ñu ñu régler le problème ben yoon mu jeex. damay remercier suma père Étienne diko ko sant di gërëm ndax xamna ko bu baax xamna aussi disponibilité par rapport ak limu bëgg ci askan bi ak ñi mu àndal ñëpp ñom Cheikh Mbeng ñom Zaga ak euh, grand papis ak tonton papa modou franchement fi ma nay ni sama gox la té suma kër mi ngi ni tout près ci ginnaw te li nga xamné tay ñom mom lañuy la diko joy

dañoo dem sur le net wala ñu dem ci presse te teewul ñoom fépp fu ñu war a jaar jaar nañ fa interpellé nañ service di d'hygiène def nañu lépp je crois que aussi ñoom lii ñuy jóg tey di ko xeex dañ ko jóg uniquement parce que xam na ne koñ bi ay xale dañ fi ne dëkkandoo yi dañ fi bari te nawet bi ndox mi day ñëw bu ñëwee mën na jël ndox mi boole ko yóbbaale ko bu ko defee feebar yi ak inondation yi mën a am ci kër yi mën naa jur ay jafe-jafe man daal maa ngi interpellé waat di ci jiital le préfet muy Alioune Badara Samb di ci tegaat ki nga xam ne mooy sous préfet di fay bi nga xam ne moo nekk fii ci boori stade la Dior moom moo couvrir li nga xam ne la zone est ak la zone ouest maa ngi koy interpeller di wax ne ñoom bu fekkee ne lii mën nañ ci jàpp wax ak waa service d'hygiène ñu ñëw le plus rapidement possible gérer jafe-jafe bii nga xam ne moo fi ne du ma fàtte aussi yaat ma gisee président consommateur moom tamit Thiès la dëkk te wax dëgg yàlla jafe-jafe yu mel nii bu ko gisee dina ci gaaw di réagir Omar la ma la waxoon démb loolu laa lay waxaat tey gis nga dëkk bi moom laa leen faral di wax kenn mënu koo defar ku dul ñun ñi fi dëkk amul ma sàmba mooy ku dëkk Dakar mënul ñëw defaral ñu Thiès ku dëkk feneen mënul ñëw defaral ñu Thiès mais di interpellé waat autorité yi di leen xamalaat rôle bi nga xam ne moom lañ leen jox ak li nga xam ne moom lañ leen dénk ak taxawaay bi ñu war am ci askan wi parce que c'est très important je crois que ne askan bi nekkin bu ñu war a mënti nekk ci jàmm loolu ñoom ñoo ci war a jiitu ñoom ñoo ñu waroon njëkk fii mais tey bu ñu demee ba askan bi ñoom jóg seen bopp takk seen digg ñëw bëgg a saafara loo xamante nii nekkul woon seen rôle je crois que ne ñi ngi interpréter waat autorités a baax encore une fois di remercier leen sant di leen gërëm ñaan yàlla saafara lii ci jàmm wasalaamaaleykum wa